Mamadou Sy Albert maa ngi lay nuyu. maa sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum euh, politique nan nga jàngatee euh, baaraamu tuuma gi nga xamante ne homme politique yi fi mu toll nii ñoo ngi koy joxlante euh, ci campagne électorale bi ñu gis ne Ousmane sunko moom ci boppam nee na gis na lu toll ak 1000 milliards ci ab benn compte te indiwu ci benn précision benn leeral goo xamante ne jëm na ci mbir mi nan nga ko gisee. waaw du gulet xam nga. politique euh, Sénégal moom élection bu ñëwee euh, ku nekk dangay ngay wax ak sénégalais li ngay waxee nag euh, mooy révélation comme Ousmane Sonko ni mu def tuumal kenn ki nga xam ne ci nguuru Macky Sall la bokkoon fekk nañu ci comptam mille milliards ñeneen ñi aussi ñu ngi koy tuumaale boo xoolee campagne bi ku nekk mu ngi jiiñ keneen kii euh, que ay sàcc ngeen yéen xamuleen dara euh, wala luubal ngeen lii ak lii élection moo moo demee noonu loolu yàgg na ci yàgg na ci senegal yàgg nañu gis muy ci pouvoir bi muy ci opposition bi à chaque fois que mu am élection euh, ñoom dafa bokk ci seen doxalin wax lu ñaaw aussi ci la ci la bokk xeex bi ci la bokk dafa mel ni élection bu ñëwee euh, acteurs politiques yi dañu defe ne lu leen neex ñu wax dara du la ci fekk donc loolu nag euh, élection moo demee noonu suñu démocratie nag moo moo des. Mm-hmm. Euh, boo fekkente ne soo waxee dara wala soo jiiñee nit ki suñ suñ la doon yóbbu automatiquement ci yoon. Mm-hmm. loolu dina deñ wala boo xeexoon wala boo waxee lu ñagas ñu yóbbu la ci yoon. mais loolu yëpp du leen ci fekk donc élection moo moo demee Ousmane Sonko ni muy waxee opposition bi noonu lay waxee ci euh, nguuru nguuru Diomaye wala ci ci gouvernement bi. Mmh. yamul ci euh, mille milliards yi donc joxoñ na baaraam tuumay tamit régime Macky Sall bay wax sax wàllum détournement. waaw mu ngi ci ñu ngi ci campagne électorale sa loolu moom kenn waru ko fàtte ñaareel bi mooy ko Ousmane Sonko ak Diomaye euh, euh, ñoo yore nguur euh, sept mois huit mois opposition bi aussi mu ngi ci opposition di jéem a xool naka lay fexe ba mën a am majorité ci élection yi di ñëw donc xeex la léegi nag ku nekk am na li ngay ni ngay xeexe Ousmane Sonko ni muy dénoncé régime Macky Sall noonu la ñeneen ñi di dénoncé tey ji régime euh, euh, euh, président Diomaye ak gouvernement bi donc ñoom ci Sénégal la bokk bu Sénégal sax foo mënti dem ci élection boo gisee États-Unis boo demee France politique yi élection noonu lañ koy utiliser pour jéem a am déstabiliser attaquer sa adversaire sénégalais yi wala électeurs yi bàyyi xel ci yow ñoom loolu mooy euh, noonu la ñu gisee élection euh, gi tamit mu mel ni euh, ñoom ci boppam jot nañ def tamit ay sorties wax nañ ci lu bëri mu mel ni fi mu toll ni homme politique yi comme ni nga ko waxee ku nekk yaa ngi xëcc sa boor mais ana lan la ñuy wër réellement bu ñuy def yenn révélation yi ci campagne électorale waaw li ñuy seet boo bëri na mooy élection ñëw na da ngay yëkkati sa sa baat nga wax li nga xam ne lii nga yaakaar ne dinañu bàyyi xel ci yow ci li nga wax loolu loolu euh, euh, acteur politique yëpp loolu la wut naka lay naka lay fexe ba électeurs yi bàyyi xel ci li may wax wane aussi am ñu bëri dañu dañuy wax pour ñu pour wane wu bon am na ñi nga xam ne aussi euh, de ñoom ñëpp dañuy seet électeur ñi ngay seete électeur nag man na wuute nga nekk ci euh, opposition wala nga nekk ci pouvoir ñoom ñëpp loolu lañuy wure naka la ñuy fexe ba ma gën a euh, marque Sénégal yi Sénégal yi bàyyi xel ci man mën a vote mën ma mën a mën a vooteel jouru élection bi suma liste ñoom mm-hmm. xeex bu metti la wante nag bon euh, est-ce que loolu di nga am li nga bëgg yaakaaruma ko man euh, sénégalais yi am nañu yar am na ñu teggin mën nañu ràññ ku ñuy ràññ njiit la ñuy ràññ du ñu ràññ njiit mukk ci euh, ci wax bu ñaaw wala doxalin bu bu ñaaw loolu moom am nañu suñu valeur def naa foofu la acteur politique yu bari foofu la ñuy juume alors euh, pour yow am na lan mooy mbébétu euh, tey def li nga xamante ne mooy campagne électorale. waa campagne bi mooy euh, am ndam. que que Ousmane Sonko jiite listam xam na ne que moom suñu amul majorité ci parlement bi di ñëw président Diomaye du mën a liggéey comme ni mu ko buggee gouvernement bi du mën a liggéey dina am blocage loolu mooy objectif waa Pastef opposition bi naka noon opposition bi xam na ni tey jii bu amul majorité euh, fii ak juróomi at opposition bi dina dina dina am ay jafe-jafe pour mën a euh, contrôler gouvernement bi donc ku nekk xëccoo bi mooy naka lay fexe ba am majorité loolu mooy seen objectif euh, ñoom ñëpp ba beneen objectif bi nag parti bu nekk muy Euh, bu nekk ci opposition bugg nga am groupe parlementaire bi nga xam ne dina la may doole loolu aussi objectif euh, muy euh, parti boo mënti jël ci opposition lu ñuy wure mooy am groupe parlementaire bu dëgër pour mën a xeexal askanam ci assemblée mën a am contrôle ci gouvernement bi def naa loolu aussi objectif parti politique yu mag yi loolu mooy seen objectif ñeneen ñi nag dañu xeex pour au moins am benn député wala ñaar député wala ñett député donc représentativité parlementaire bi loolu ñoom ñëpp ñoo ko bokk comme objectif. Mhm. ana lan mooy nag euh, enjeu wu élection législative yi. ben enjeu bi mooy le mooy gouvernance Pastef su amul majorité du mën a jiite Sénégal juróomi at gis nañ euh, assemblée niñ ko tase lu taxoon président parce que mooy que mënatul liggéey ak assemblée bi amatul déggoo mu wóor que ne euh, su bàyyee noonu assemblée loi yu bari du jàll euh, day nekk ci instabilité donc loolu euh, majorité présidentielle bi xam na ko opposition bi itamit xam na ne su amee majorité parlementaire dina gën a mën a jaakaarloo ak président joma dina mën a gën a jaakaarloo ak assemblée objectif Euh, xëy na bu gisaguñ ko euh, opposition su amee majorité parlementaire soo moytul premier ministre bi ñu nar a tànn ci opposition bi boobu la nar a jóge mhm. donc loolu yëpp mooy enjeu euh, élection législative bi alors leneen jëm ci violence gu bëri gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko euh, ci campagne électorale bi léegi gis nañ ni cortège yu Ousmane Sonko dañ ko attaqué woon siège yu taxaw Sénégal tamit ñu taal ko ana nan nga jàngatee lu ni mel. waaw violence ci dafa bokk ci Sénégal yi tamit de neexul wax. Mhm. wante parti ñooy indi violence. du du sénégalais yii du électeurs yi amul benn électeur buy ñëw jàkkaarloo ak keneen beneen électeur di ko di xeex ak moom parti politique yi ñooy xëcco xëcco bi nag euh, bu dee da ngay jiñ sa morom lu la neex euh, loolu mooy indi xiiroo ak ŋaayo di xiiroo ak ŋaayo nag fu mu am mais jàkkaarloo am xeex bi ñoom ñoo koy organiser so parti boo mënti jël tey ji am na service de sécurité hmm. am am na ñi nga xam ne le le fi ñu féete mooy sécurité wala xeex bu ñëwee ñoom ñoo ñooy ñooy xeex parti boo gis am na ay euh, ay militants ñi nga xam ne am nañu arme blanche loolu ñëpp xam nañ ko donc violence bi ci partie yi ñuy jóge léegi nag euh, day profiter que muy Koungheul muy Ndakaaru à chaque fois que mu am confrontation violence euh, day am def naa loolu euh, parti am nañu responsabilité mais état bi aussi am na responsabilité mooy euh, police muy gendarmerie dañu war a anticiper ñu ngi ci période élection xam nañ que trois euh, trois semaines la dina am agitation dina am mouvement loolu góor ministère de l'intérieur dafa war a anticiper jéem a protéger au moins les les responsables mais jéem aussi artu il faut il faut mu am campagne de sensibilisation contre la violence. Mmh. que loolu xëy na suñ ko defee euh, de violence du am. Mhm. ginnaaw ba mu jógee sax euh, ci euh, voyage am bi ca Turquie mu mel nii indi na sax ay leeral ci samedi bi njiitu réew mi ba Bassirou Diomaye Diakhar fay jot naa génn euh, woolu nag acteur politique yi ñoom tamit responsabilité gu mot sëkk ñu mën koo doxal ci campagne électorale bi te laata loolu sax jotoon naa woote ngir jàmm mën a am waaye dafa mel nii dafa dal ci noppi ñu tax dégluwuñu dégg politique yi wax dëgg nag dégluwuñu benn président Diomaye day day wax euh, day sàmm démocratie bi woote mais euh, ñëpp gis nañ que violence bi euh, mu ngi fi violence bi nag mu ngi ci parti politique yi parti politique yi ñoo waxul dëgg parce que boo nekkee ci parti politique yow nga gis sa militant di xeex walla di yore arme blanche te waxoo ko mu mu bàyyi woo ko loolu mooy violence légitimée dafa bokk ci élec ci campagne électorale bi la violence bon léegi nag euh, président euh, c'est vrai que war na quand même artu ne ku ku def li nga xam ne jaaduwul dina la yóbbu ci yoon loolu loolu je pense que lu président war na yëkkati baatam ne ku def violence suñu la suñu la tey mu dañu la yóbbu ci yoon su du yoon euh, wax li nga xam ne war na war na la dal bon mhm. parti aussi am ñu responsabilité il faut que ñu xam ne que politique c'est du violence violence kuy indi violence ci élection soo moytul yow yow yaay perte mhm. alors ñu gis ne ci attaque cortège u sunk Amadou Ba moom tamit ñaawlu na lu ni mel euh, fexe daal ba génn ne li am ca Koungheul euh, war nañ ko mën a saytuwaat fexe ba loolee dootul amati nan nga gisee euh, démarche Amadou Ba moom en tant que opposant mais lu ko war la Amadou Ba homme d'état am na expérience xam na ni violence du jur dara violence du violence rek lay jur mënul jur leneen mun mënu la benn électeur amul benn électeur sénégalais buy tànn kii euh, parce que violent la loolu je crois que du Ba lu ko war la am na expérience il faut mu yëkkati baaxam ne lii violence moom àndu ci muy pouvoir bi muy opposition bi loolu moo war euh, leader bu bu nekk léegi nag bon mën nañu mën nañu wax ni que Amadou baax aussi day calculer hmm. boo gisee ñaari nit wala ñetti nit ñeenti nit ñoom xeex rek lañu bugg yow soo yëkkatee sa baat nga dénoncer xeex bi mën nga am gain gain électoral parce que nit ñi moom euh, yaakaar naa lu ñuy tànn mooy ki nga xam ne ànd na ak jàmm ak dal loolu aussi bokk na ci démarche Amadou Ba. alors lan la ñu war a mën a def rek ngir mën a am euh, élection législative bu jaar yoon waaye surtout boo xam te ni dinañ ko mën a dund ci jàmm. non il faut ñu génn ci élection euh, démocratie électorale démocratie du élection rek. Hmm. de démocratie da ngay tabax dañu tabax bu ñu tabaxul woon démocratie ñoom ñii di xëccoo tey jii du ñu am fu ñu xëccoo. démocratie boobu dañ ko tabax sant ba tey ji euh, il faut que partie politique yi nangu démocratie euh, mooy euh, li nga xam ne espace la dafa am respect en diggante adversaire mais aussi weccante xalaat li ñuy xaar ci démocratie mooy ku nekk nga mën a indi dara nga proposer lenn ci affaire loi ci affaire assemblée ci affaire doxalin réew loolu la ñu xaar ci démocratie démocratie du élection rek boo boo xoolee bu baax am na ñi nga xam ne bon mën nga toog cinq ans doo leen dégg fenn mais saa yu élection jóge euh, jote dañuy jóg mm-hmm. parce que noonu la ñuy gisee démocratie électorale defe naa tant que mentalité yi ak comportement yi euh, dañul euh, du neex am démocratie apaisée mais loolu nag dafa laaj parti politique bi gën a gëstu xool euh, ci affaire offre politique élection bu ñëwee offre politique la ñu xaar ci dirigeants yi mm-hmm. du xeex la ñu xaar du du euh, manque de respect institutions yi dañ leen war a respecter mm-hmm. def naa daal ñu euh, ngi ci yoon boobu wante nag des na des na lu bari lu bari pour classe politique bi mën a xam lan mooy njëriñ démocratie lan mooy njëriñ élection pour askan bi alors ñu jeexalee ci jigéen ñi rek ndax gisuñu benn jigéen tête de ci li nga xamante ne mooy législative yi pour yow loolu lan moo ko waral. waaw loolu gàllankoor bu la yàgg na parti politique bi ba ba léegi wóolu ñu euh, jigéen ñi am na jigéen sax ñu am seen parti mais boo xoolee comme ni nga ko waxee boo amul benn liste bi nga xam ne jigéen jiit na ko loolu amuñu conscience ci jigéen yi. dañu wax rek parité ànd nañ ci mais ci jëfin bi ànd nañu ci doxalu doxalin bi daal méngoowul ak parité ndaxte hmm. gisuma euh, lan moo mën a tax parti politique yi am euh, ay responsable jigéen am formation am expérience am confiance amul benn liste bi nga xam ne jigéen jiite na ko hmm. dafay mel ni pour ñoom parité mooy que góor gi euh, góor mooy jiite jigéen bi topp alors que c'est pas ça parité mënoon na nekk une tête de liste jigéen góor euh, nekk de deuxième euh, def naa culture politique des des hommes euh, des acteurs politiques moo demee noonu mm. seen gis-gis ci jigéen des na lool léegi nag bon jigéen ñi ñoo war a xeex waaw waru ñu nangu lool mais nañu seet pexe am na lu ñu lu ñu bëgg ñoom tamit ci ci politique Mamadou Sy Albert euh, jërëjëf may fàttali rek ne sa xel dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.